y no caí fi nekk nag peut être war nañoo mën a doy mission bi aussi parce que liiru jaan tey ñi kon a xam na ni lépp moo yaakaar ni war na fa mën a dugg tamit dugg na fa xam nga kenn ku ci nekk tamit incha allah jox na la ordre boo da nga ko dox xam naa ni incha allah am a dafa ciblé kii nga xam ne mooy Balla Gaye 2 yow moo ciy sax. non ciblé wul Balla Gaye 2 ne géejawaay Balla Gaye doo nga dëkkul géejawaay du dëgg c'est-à-dire géejawaay dafa am ay ay kilifa yi fa nekk dañ ñu jàppale ci côté boobu xëy na ñoom la gën a waxal mais Balla Gaye mu dañuy waxante dëgg dafa yañ njabootam comme ñëpp te tey ko ko ci tudd rek ko aussi dëgg yàlla ñi muy waxal nag ñu ñëpp la am nañ ci part suñu autorités yi fa nekk am nañ ci su ñu yeneen kilifa yi nga xamante ni seen loxo jot na seen ginnaaw am nañ ci part waaw. tey lan nga ñu mën a ci Lac tant que Lac de Guiers mais en tant que frère am. waaw man nag man man rakk laa ko jàppee ndax man lu laa koy def lu laa koy wax dëgg yàlla lu ko kenn sañtul wax maa koy ñaa koy def mais xëy na coow li ñu bëri teeluñu ko yëg au fond ci mbër géej waaye parce que tamit la de guerre góor la boo xamante ni jàpp na ni moom mënoon na koo gérer rek la ko ba affaire mën a teguwaat ci ci jàmm mais xëy na affaire dañoo dem ba mujj bi moom da ko ëpp doole te noonu nag aussi la bett man la loolu moo tax affaire situation yi demee nii. ñu xaar Sa Thiès yi. Eh, ci làmb ah. man ba bëri bàyyi naa bëri. <laughs> nañ tey mbër yu bëri ñëwuñu. waaw xam nga tey ñun duñu duñ man du ma mën a wax yooyu parce que nekkul maa ngi déggante ak famille ñoom la de ñi si jàpp ak ñi si jàppul man du ma si mën a xam lu bëri quoi waaye de toute façon képp koo xam ne yow jàpp nga si rek tey yaakaar naa ne ay mbokk la de wax nañ ko quoi ñi nga xam ne dégg guñ leen si tamit ñu ngi leen ci woo ñu duwal seen loxo. waaw yenn mbër yi si ñëwul dégg nañ seen dégg nañ woote bi tey comme woote bi tey dégg nañ ko ñi nga xam ne jot nañoo ñëw waxuñoo ak ñoom ñi nga xam ne jotaguñoo ñëw ñu ngi leen ciy woo ñoom ñu ñëw jàpp si affaire bi parce que affaire bi maanaam la dëgër pour de làmb la quoi te doomu géejawaay la tamit doomu Sénégal la erreur mënul ñàkk si doomu aadama yàlla rek moo dul juum kon ndey nit bu juumee xam nga li ñuy ñaan bu jugee si lii moom mu gën a yeewaat gën a xam lan mooy àdduna quoi parce que àdduna léegi tey ni muy doxee il faut nga dem ak sa xel quoi bul topp sa bëgg-bëgg. sa xel ngay demee moo lay tax tey nga mën yi nga xam ne moo lay indil ay problème quoi waaw mais ñu koy ñaal yàlla defal ko jàmm daal jàpp nga bi ñu def bi ñu ko defal mën na saafara lu waaw man nag euh, am na lu ma si rafetlu am na loo xam ne rafetlu ma si mais nekkul loo xam ne non nekkul lu may wax si ay presse am na lu ma si rafetlu parce que comme la affaire yoon dafa sévère affaire yoon dafa nekk loo xam ne lu doy waar la waaw man li may wax nag man xam naa ko parce que dund naa ko xam naa li may wax affaire yoon dafa sévère am na lu ma si d'accord am na si loo am d'accord mais ñi nga xam ne ñoom laa ci war a waxal dinaa si waxtaan ak ñoom pour prochaine fois ñu gën a xam ni ñuy communiquer ci côté yoon sa yoon dafa sévère quoi. mel nii si làmb mais làmb bii nii làmb bu ma gën a làmb bu a fonk sama àdduna mooy combat bi. kon kon am neex amul benn chance si combat bi. parce que Seydina bu ma gën a fonk si combat bi laa la wax. billaay wallaay taalaahi mooy combat bi man waruma daan daanuwaat. man si yoonu famille laa sama taaw yaay waru ma juum juumaan lu topp sama ginnaaw dafa bëri lu topp lu topp sama ginnaaw moom topp ko laam man la gën a soxla laam man la gën a bëgg mais maa ngi ñaan yàlla ma ndam mais tey noo gisee teewaayam euh, euh, mu teew en tant que sa adversaire. waaw di sant rek di ko wax ne ko maanaam moom lu rafet la mm-hmm. ma ma ma ma def bu rafet. Mm-hmm. di ko si sant bu baax di ko si ñaanal jàmm bu baax a baax a baax. Uh-huh. parce que geste bu ñu def nii mooy loolu bàyyi. waaw uh-huh. ah, geste noobu la def. Uh-huh. waaw maa ngi koy ñaanal jàmm bu baax a baax a baax. mën nga gisee loo gis ki moom. waaw lu ma gis moom ko waaw comme nit rek ku taxaw rek. yee comme nit ku taxaw rek laa gis moom ah. yee waaw mais xale mais bett la bett la. waaw mais fi ñëpp fa war a ñëw. wala lamb sax ñu bëri ñëw ñu ñëpp fa war a ñëw. mais ku nit ku nekk ak lu lay téye ak sa programme yaa ko xam. mais ñoo ngi ñu ñu ko defal la mais nu ma gis li leen gisal laa gis quoi làmb la mu dépassé leen lu làmb mais kàddu yi yenn mbëri mbëri Pikine yeeg euh, mbëri Géejawaay waaw loolu loolu loolu loolu moom moom la quoi yaa ngi gis mais man tam nit ku nekk dama lay comprendre maanaam ci demande bi nga nekk ñu ñëw xaw ma lu leen téye xaw ma lu ñuy def xaw ma ci lu nekk quoi mais moom ñëw na ñu ngi koy sant di ko gërëm wax na tam lu rafet leeral Aziz Sy Junior ak Fils de Balla ñu ngi nii. mooy xale mu naan baal ma mooy xale. dañoo xuloo woon ñoom waaw dañoo xuloo woon. yow yaa doon eh kii sa grand damay yow yaa doon Aziz Sy baal mosuñoo xuloo mosuñoo xuloo erreur amoon na si diggante moom rek ah. kii maa la daan di la rek kii kii kii magam magam magam sama xarit boole ah? kii daa ñëw open press kii kii ñëw na press kii. aja ah, fi nga baale ñu maa lay fay. Euh, tey euh, ngeen ñëw gis nañ ne en masse ñu def benn point de presse jël leen ko ki nga xam te ne moom mooy Lac de Guiers numéro 2 tey nga gisee loolu. waaw li waaw moom initiative bu la quoi dëgg na yàlla mais. dafa des quoi man li ma gis dafa des. tey fii mbëri mag yi yëpp waroon ñëw tay fii. làmb CNG war nañ fee ñëw ñëpp ñëpp waroon ñëw tey yaa ngi comprendre barki Serigne Touba Mbacke ñëpp waroon ñëw tey muy mbëri mag yeeg muy journaliste yu mag yi muy reporter yu mag yi ñëpp waroon ñëw fii tey làmb tolul ni boo xoolee li fi nekk nii làmb tolul nii quoi tamit dañ jàppale la dëgg suñu la bokk suñu la voilà heure nag ku ne lay dal lii ku ne mën naa xëy dal la ñu ngi ñaan yàlla mu fii rek voilà. Euh, ñu gis ni euh, Lac de Guiers kon li ñu wax am na li moom mooy moitié bi dégg nañ ci ko wax ji dégg nga euh, kii di ama neex am na benn sortie bu mu def ñu ne sortie bi dafa sévère. waaw non ama neex li mu wax dëgg la géejawaay loolu géejawaay ñaar bonne volonté defe ne bonne volonté bu ñu defoon ku nekk 5 millions 5 millions rek wala 3 millions 3 millions mu mat ndax 22 millions moo ci des ci 59 millions 22 millions moo ci des xanaa loolu bu defoon nit ñi bu ñu defee bonne yi mbëri dajale di ñor mu mat kon kenn du soog a woo barki yàlla amu neex lu ma wax dëgg la. mais à part ça yow ci loolu. man maa ngi nii si jàmm maa ngi sama jàmm rek. waaw dafa am coow lu am. ban coow la Fils de Balla euh, pour une première fois ñu jox avance mu delloo avance. dafa man Fapal ma loolu du ma si wax man loolu. jàll na li amoon na jàll na jéem na jéem. dafa bari ñëpp coow man coow ju la fekk baax man yàgg naa mis naa coow. coow moom mis naa ko. waaw comment bu ñu la après dem na si biir sama saaf kenn daa ko rusi ñu loolu waxtaan si. waaw ñu bàyyi. bi mu ne da nga da nga mooy. non adversaire moom amul wax si moom ndax am na combat du ma wusu dara ma koy ñaanal jàmm rek amul lenn lu may wax si moom la ma koy ñaanal jàmm rek que le meilleur gagne. sa ak Gris 2 loo ci wax. que le combat ak Gris waaw bu ko gars rek pare naa bu gars yi d'accord rek pare naa. day wax ci kaw bàyyi ci suuf que ni moom bëggul bëree ak Gris 2. non bu gars yi rek pare naa. bu gaa yi pare bilaay bu rek pare naa. allure am buñ d'accord rek pare naa. ni mu bëreeg doomu daal pare moom bu gaa rek pare naa. waaw. Ah, yan doomu daan bu joxoon nañ ko sa avance. lamb la lépp lamb la ku ma lamb boole la may bëri maa ngi fi pour lamb waaw ku lamb seet mu jaaru ñu wax lu raisonnable bu ma bëre lamb laa fi nekkal. Mhm. mais sant bi pare nga. pare naa pour bëri ñëpp ñëpp pare naa pour mhm. maa gën a kontaan sama yow.